si al ci élection locale yi amoon euh, démb euh, ci euh, Sénégal jarut ñu ci dellu si waat li nga xamante ne moo fësagum ci yooyee élection locale donte sax ñu ngi xaarandi ay résultats définitifs ndax ay résultats provisoires kese la ñu joxeegum mais amna na la mu wane sunuy gan Sadikh Niass bokk ci société civile njiital RADDHO akitam itam Ibrahima Ndiaye bu PRP bu Déthié Fall bokk ci Yewwi Askan Wi naka ci bu mu bi professeur euh, Moussa Diaw di euh, enseignant chercheur est l'Université Gaston Berger bou Saint-Louis leral ni itam ni ñi féetewoo ci nguur gi euh, mënut woon ñu invité leen waaye invitation amuñ ci li nga xamantene mom lañ ci yakaron Sadikh Niass yow lañu mu jëloon ñoo egg ci journal bi élection yi dégg nañ ni. Euh, Dembou ñi nga fee ñi wu ci kujigi gi ba sax élection yi la euh, di wax ay wala ay fraude est-ce que kaddu yoy nga xamantene nit ko jibal jëm ci élection yi euh, na mais ñu nak ndax dafa ci Sénégal euh amna rupture de confiance. bu am ci entre acteurs politiques yi te waruloon nekk nag parce que yàgg nañu di def élection euh, da ngay gis souvent sax ñu ne voilà fichier bi nii ñu dem jël ay milliards def ko ci am na yu bëri opération yu bëri def nañ ko avant élection yi pour man sax amuloon benn njëriñ xoolaat fichier yeeg defaat ay audit ak yooyu yëpp ay manque de confiance moo koy indi mais boo xoolee résultat yi ni mu génnee. moo lay wan ne kon processus bi euh, euh, leer na. est-ce que fi mënante nañ ci sàcc élection ci Sénégal. waaw léegi sàcc élection ci Sénégal en tout cas nañ ko daan sàccee moom. Hmm. mënatul ne xëy na am na yeneen façon yooyu mun a def ngay walla ñiy wax transfert nañu fi ay électeurs euh, def nañu fi carte carte électorale bi soppi nañu ko yooyu day indi peut-être que mënuñ ko sax tuddee sàcc mais indi ay.

ñi ko organiser perte ñeneen ñëw moom la ñu commencé waat gis nii ci élection yii ça veut dire que euh, ñoom ñu doon wax ne walla élection yi sàcc nañ ko ba pare léegi <laughs> lan la ñuy wax bu ñu gañee <laughs> léegi loolu daal mooy wax ji <laughs> euh, dañoo war a renforcer confiance bi ci entre acteurs politiques yi dinañu épargner lu bëree bëri ay milliards yu bëri ñuy yàq ci yenn yoo xam ne amul benn njëriñ mun nañ ko dindi man demoon naa fi Cap-Vert di observer moo wax leen asaru encre ñu ne loolu pour lan la ma ne leen dafa am nit ñoo xam ne mun nañ ñëw <laughs> ñu ne ma loolu xam sax mayewu ko ñoom seen éthique mayu leen ko dañu war a toll foofu nag ci Sénégal war nañ dépasser yenn étapes yi renforcer suñ processus électoral ba nga xam ne euh, alors yooyu sax dinañ ko dindi ci kii ñu ñu bañ a am tamit confiance bu amul ci acteurs yi lu bëri dina am ci ay jafe-jafe ay fitna yoo xam ne jaru ko woon ndax boo xoolee dafa mel ni citoyens yi ñu am ñu ëpp maturité sax acteurs politiques yi campagne bi gis nga violence yi ñu ci doon xaar ñu naan nii caravane yi dajee fii ñu clash def ay xeex ñu mais bu jour vote bi jotee bu peuple bi génn dañ naan nem. voté monsieur Ndiaye mm, ah, sànq Sadikh mi ngi koy wax yéen euh, waa Yewwi laata élection yi seen leader ay ñoom Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko dégg nañ leen ñi naan seen yoon nekkul ci fichier nguur gi dafa taxaw ngir sàcc élection yi jaarale ko ci fichier bi waaye tamit ay transfert d'électeurs yóbbu ay nit feneen tey gox yu bëri yew yi gañe ko ndax la ngeen waxoon di ngeen ci delluwaatu wax ne élection yi dañ ko sàcc. waaye il faut il faut ñu ñu ñu ñu ñu def ay précision pour mu ñu xam liñ ci liñ doon wax fuñ ko teg d'abord élection dafa amoon processus doyam li wax léegi dafa amoon rupture de confiance bu ñuy dem élection bu ñuy bokk dem ci làmb ñëpp dañoo war a mànkoo ne lii mooy règle du jeu su amé su amé ay ay ay ay ay kook yu ñu netee dañuy xam ne am na lu xew maanaam ci process déjà délivré bu ñu daan délivré. mais dialogue amon na dialogue politique. amoon na waxtaan ba jubóo ngeen teew fa mais waxtaan ba djubo consensus am. teggu ko djubo kon amoon na am dialogue amoon consensus sur l'essentiel essentiel de point yi amoon na yu ñu déggu déggu mais dañu tamal dara dañuy tamal ben processus ñu dem ba ci bir mu am ndëgg sërëx te te te te te artu nag ak ak yuuxu balaa ñu laa gaañ daf dafa dafa war ci ci jeu politique ma dama la jox juste misaal mais pour ñu mën a xam dafa am am yoo ne dañ koy def ci politique transfert de directeur dafa yàgg ma sam dafa am ci yàgg am ci dëkk bi waxtuñ bourrage des journaux la soviétique loolu amul loolu am Sénégal parce que moo mënoo ko def ñu ñu ñu teg ci bët mais transfert de wala boo joué ci carte électorale dañ nguur def na ko fi ko donc mënoo am démb nag dafa am muy jëriñ pour nga mën a xam ëllëg sa ëllëg lu mu doon

ci ay régions yi nga xamante ne c'est des régions yu yi nga xamante ne euh, moom mooy euh, les zones yi nga xamante ne moom mooy moom moo gën a fës ci wàllu élection. waaw mais précisément pour dire quoi ça veut dire la ça veut dire que mbir ma jaar na foofu yoon. waa jaar xam nga damay élection bourrage urne soviétique am mënut fi am. loolu waxatuñ ko hmm. doyen dafa lu mu mandarga sànq ba leen ne encre élim bi moo nañ ko war nañ ko mën a dindi parce que jamono mu dox mais am na yoo xam ne ba tey mën na nekk ku deful politique nag mën nga ko bañ a xam mais transfert d'électeur lu mën a processus moo ko mën na ko carte électorale mën mais est-ce que la même accusation leen ko ñeneen ñi ndax euh, mais homme politique yi ku ne da bëgg stratégie bi nga est-ce que transfert d'électeur ça n'a rien à voir ak lu jëm ci euh, bourrage ak wala électoral est-ce que yéen itam ñi euh, pour ñu woteel leen dugal leen ci circonscription yi nga xam ne fa la ñuy jongante. waa dafa am dafa am loo xam ne il faut aussi ñu koy ñu koy leeral George mm-hmm. George dafa am ci ci xeex soo suñ dee ñaari ñaari mbër mbër moo xam ne saa yoo moom mu làggal la maanaam jam la dara toog taxaw yow daan la bu la ko defee defatee ko balaa ngaa dem làmbaje ja da ngay da ngay art da ngay yëgle ñëpp ñuy dégg mais processus bii ñu gis ñu gis ñun liñ ci gisoon suñu arti wutoon su amutoon vay leneen la ñuy jur. mais mais yéen tamit mënoo leen tamit ma daaneel mel ni rek leneen mel rek leneen dafa am. làmb ji lu muy lu muy métti métti métti soo ëppee doole ki ki nga jaamaar lool mu quel que soit le type de bourrage quel que soit le type de de de fraude da ngay jàll. mais est-ce que fichier bi ak ay transfert directeur du ay lay rek parce que bu ngeen gañee ne fichier bi baax na bu leen gañee ngeen ne fichier baax dañoo sàcc loolu est-ce que du ay lay rek. ngeen di wër non du ay lay du ay lay. bu leen gañee ngeen wër lay parce que parce que def nañ fi audit.

kenn ku ci waxoon rek ngeen boole ñëpp ne position bi la. mais du n'importe qui ñoo ko moo ko wax tam. waaw ba ba tey ba tey d'accord ñu ñu ko xel. élection fii ci dëkk bi dafa am dafa am taarix am nañ fi amuñ fi woon ur isoloir am nañ ko. encre lim bi ñëwoon na fi jamono dox na ba ñu yegg fi ñu ngi ñun ñu ngi yàgg wax ay at a ngi bi lan moo tax mënuñ ko vérifier benn yoon de sorte que mënuñ ko changer. ñu ngi wax transfert d'électeurs lan moo tax mënuñu légiférer parce que fa am loo xam dafa dafa dafa dafa doy waar nan la ab ab ab certificat de domicile nan lañ ko mën a joxe comme ça à l'appel alors qu'il y a une possibilité d'avoir de légiférer là-dessus de sorte que te instrument bu doy war la sax ci ci vie activité activité professionnelle Dañ koy laaj tout le temps Lutax mënu ñu vérifier classe politique man pour ñu xam nan la ñuy délivrer car euh, euh, certificat de domicile ak ses donc yoy yep lu war lu ñu war a lu ñu war la ba fa de sorte que buñ ci yëkkati du poser de problème processus nak processus la tuddu. dañ koy parfaire saa yu ñu ci jógee mairie dañu maire ak nous il parfaire processus ñu fale def nañ ko bañ bañ élection au suffrage direct pour le maire mais que ci sétlu tay gi moy ay erreur mëna ci am ma jox la juste misaal maire buñ fal suffrage direct fal su su ki ñi remplacer conseil municipal conseil municipal donc yu mel non war nañ ci mëna taxaw ëlëk donc bo leen di ngañ opposition bi ne opposition bi ben lenn la am lu muy wax ngeen taxas ben taxas yëmal ben côté ne ñepp ko ñepp ko wax il faut aussi ngeen nangul ne opposition bi bam ñom ne y a des identités remarquables ci nek yo xamne dañuy nangul ni su dëgg taxaw dañ koy wax ci ta yalla tax professeur Moussa Diaw allo professeur Oui, je suis là. Ah, je suis là. ngeen jégal ma euh, lu jëm ci wàllu ba euh, fiabilité fichier électoral beeg ay euh, fiabilité processus bi est-ce que kaddu yi ci doon jib yëpp tey wanewul ni Sénégal coow li coow li am na fa nga xamante ne weesu nañ ko. waaw am na ay avancé ah hein, am na avancé malgré quelques observations yoo xam ne ñeeg ci ko jógee wax nañ ko. Euh, euh, aucun système n'est fiable à 100 Oui, aucun système n'est fiable à 100 mais mais je pense que le modèle électoral de bu et de bi baax amélioré koy améliorer rek dañ koy euh, de telle sorte que nous éviter certains dysfonctionnements parce que gis nañ ci affaire euh, bulletin yu manqué yi dégg naa ko ay bulletin yu mhm. manqué wala bulletin ay enveloppe euh, yu jeex ou de trucs comme ça kooku nag ci au niveau l'organisation matérielle mhm. mais euh, le fichier électoral fichier bu baax la parce que ci li ñuy def ay am nañ ci ñaari alternance ma gis que ma yaakaar ne li ko war a améliorer chaque fois chaque fois que élection ñëw ñu def évaluation bi c'est lan moo marché wul ñu gën ko ñu gën ko defaraat ba mu gën a dëgër et puis comme ça dootu am ben ben vraiment ay ay débat ci ci fichier B qui qui fonctionnalité fichier beeg yooyu quoi je pense que euh, ñu avons avancé ñu avons avancé bas baax mais là laaj nous ñu gën ko gagnons euh, gën ko comme ça dootu nous dootu ñu nekk c'est-à-dire comme man ma ko bokk wax ni euh, ñuy def ay encart a eu di takkal citoyens yi mais mën que ko def de telle sorte que ni mu bañ am

ci euh, déroulement vote bi kan waru nekk ni ci teen bu nga xam ne fa ñuy wote ci école yi di fa traîner di influencer ay nit ñuy ñëw nga xam ne peut-être xamuñu nu ñuy ak yooyu nga leen di wax leen wote leen pour tel tel tel tel euh, bulletin et cetera kooku war nañ ko war nañ ko wan ke da te di indi ay problème chaque fois. Hum, euh, et puis am na am na am na ay aussi ay ay dispositions yu wàññi war nañ war di jël en aval ay dispositions en aval. Hum. kooku moom ce sera très difficile puisque achat de conscience am na. Hein, euh, peut-être non nous des politique mais euh, d'instrumentaliser, instrumentaliser euh, de jouer sur la pauvreté parce que y a des enveloppes distribuer beaucoup d'argent beaucoup de vous ne pouvez distribuer les pour ci quartier ou wala ci Aïe voilà qui j'ai voilà groupement ou des des fabriques etc de distribuer enveloppe alors de a voilà nous devons concert voilà par exemple des concerts nous fait 40 millions pour euh, pour Ben Vedette une nous 30 millions nous des concerts parce que amener Khalis du coup distribuer alors que les 40 millions les 100 euh, millions yooyu xëyoo ñu ci commune Maintenant, mm-hmm. ah, on a réglé les problèmes. problème ci commune plutôt nga koy jox ay artistes pour mais nga xaar peut-être gagné on nga ko def dans la foulée mais pas quand même pour les pour les élections essayer de faire des concerts, de ni da ngay da ngay grignoter ay ay ay voix. professeur si wàllum njàngat euh, gis nañu atum 2009 local 2009 opposition bi dafa gagné woon euh, ville yu bari bari ci réew mi ba ci sax Dakar capitale bi taxawu Dakar bu Khalifa Sall gagné woon ko ak gox yu bari ñu gagné ko euh, tay ji ñu gis na yeewu askan wi tamit euh, gagné na gox yu bari ci réew mi donte sax tuwab day wax ne comparaison n'est pas raison est-ce que li amone 2009 mënta amaat enfin maanaam 2009 après gis nañ 2012 présidentiel bi opposition bi moo mujjee jël nguur gi tey est-ce que lu ni mel mën su ko njort ci fii ci tamit ci Sénégal ci présidentiel 2024 yi ñu jëm ah yaakaaruma quoi ma yaakaar ne rek ñoo ngi avancé ma je pense que ni euh, ku si nekk su joué rôle euh, règlement yi clair principe yi clair clair euh, daañu dem ba nga xam dañuy accepter ku gagné nga gagné waaw do am ben xëccoo ba yóbbu ci yoyu euh wala mu ñu am saisir encore ay ay tribunaux yeeg yooyu pour pour contester telle ou telle élection mais yakane rek euh, il faut que mu am consensus quoi il faut que mu am consensus consensus bi nag ma ngi dépendre ci ci leader yi ñu intérioriser euh, valeurs yi cest valeur démocratique principe ak valeur démocratique. Mhm. man fi waxe sax moy 2024 opposition bi est-ce que mën na jël nguur gi 2024 manam euh, comme ni mu amé won 2009 après 2012 ñu jël nguur ko opposition bi mën na ñor 2024 mu def résultat. waaye loolu man na de toute façon ay préparation la Le yëpp magui ngi dépendre ci ni ñuy gérer sen sen résultat ma ngi dépendre stratégie yi ñuy choisir euh, en tout cas euh, ci lii résultat yi dafa leen di conforter waaw dafa leen di conforter ñu gën a ñu gën a liggéey euh, pour encore gagner yeneen échéance électorale yu xaar yoo xam ne aussi yu am importance lay doon parce que ñaari am na am na xam ne ci année bii la mooy législative yi te loolu am solo la parce que mooy pratiquement déterminer la suite ma yaakaar ne nag kooku daañ ci liggéey ñoom ñëpp daañ ci liggéey ku si nekk en fonction donc l'objectif euh, objectif am et donc je pense que nous euh, devons préparer euh, faire en sorte que le résultat nous nous de de consolider cette position ci espace politique et puis xam nañu les résultats résultat yi hein, impact dans la impact configuration ci rapport de force au niveau politique coalition yi euh, bu gagnez, dana gën euh, position et puis aussi nous euh, ñu xamné dañu am échec améliorer situation nous échec gën que gën que gën que gën lan citoyens wax ci élection ban sens ak mm-hmm. pour mu mëna mengo nous ni citoyen loolu ñu bëgg ñu politique wala ci affaire euh, pratique politique wala ci affaire euh, respect ay ay valeur ak ay ay normes. ñuy ñëwaat yow euh, professeur Moussa Diaw Sadikh Niass njiital euh ngir ciow la nga xamantene ne moo di coow lu jëm ci walum càcc rupture de confiance ba nga xamantene mom moy am baña a kóolute gi am diggante ku ak ñi nga xamantene ñoo di euh wa opposition ci walum élection est-ce que tay war ñoo mëna dem sax ba euh nit ñang koy wax ah, lu jëm ci walum Sénat. Nous disons ko fi teg fi ab seni euh, dindi organisation élect euh, organisation élection jële ko ci loxoy ministère donte sax on voit des démocraties yi nga xamante ne ñoom ñooy référence c'est l'administration qui organise les élections waaw loolu dëgg la ndax da comme ni ma ko waxee woon ci début bi rek sunu réew moo bindoo alors euh, mu am <clears throat> ñàkk wóolute boobu ci diggante acteurs politiques yi mm-hmm tax na ba nga xam ne ñun yàgg nañu sax di def recommandation ñu def benn autorité indépendante koo xam ne nii vraiment féetewul ci nguur féetewul ci euh, benn euh, waa waaso politique ñu jox ko pour mu organiser élection yi bañ ko defee sax ci su Ablaye Wade moom defoon na ministère chargé des élections jox ko Cheikh Gueye yu mel noonu xëy bon dina renforcer confiance bi. bu ministère ministère délégué tout même. voilà ministère délégué la parce que tamit bon capacité yi nga xamné euh, ni ñuy wax administration am ko aussi waruñu ko perdre. waaw déploiement ak yoy yëpp amna euh, matériel beeg yoy mun nañ ko confier affaire alors euh, préfet yeeg euh, administration territoriale mais mu am ben personnalité bo xamné mom day indépendante mom mooy nekk saytu euh, organiser élection yi. mais système bi niñ ko défé ni tamit ba légui bonul. bonul ndax euh, dañu ne organisation matérielle bi ministère bi nako yoré mais supervision bi ñu jox ko Sénat maintenant Sénat bobu nak buñ ko mënon doolee watal bam nek comme nu nga wax séni nga xamné dina am yenen responsabilité yu yu ñu ko jox mu gëna dëgeural taxawayam dina dina renforcer suñu système comme nu ko professeur waxee rek élection bu jall rek dañu wara def évaluation jall ci étape yi ci dess baña di déllu gannaaw ñi nga xam ne xam nañu ne baax na ñu bàyyi ñu bàyyi ko fi dëgëral ko comment si continuer dem bo xolé par exemple financement parti politique ak euh, plafonner budget campagne yi yooyu dina tax ay euh, yenn yi achat de conscience yeeg comme lu mu doon wax yàq matériel jël ay ki jël affiche mur yëpp def ay yoo xam ne nii ay dépense de prestige la mun na mun na tax mu dañ mais bu boobaa dafa am cadre bu ñu leen di fixé ba nga xam ne sur le plan des normes li mooy am di nga xam ne tamit comme bulletin unique ñun yàgg nañ ko wax ndax boo xoolee ay juróom fukki bulletin nga teg ko bu nekk nga jël couleur yi sax day dem ba couleur yi do yow mii nga xam ne sax nekk goo mag sax couleur yi daf lay xaw a jaaxal xàmmeetuloo am na si ñu bëri dinañ voté mais xamuñ sax ku ñu voté la dañuy jël benn carte bu xaw a ñuul rek ñu xaw nañ leen indil bulletin bu ñuul bi ñoom ñu indi bu giri yu demee noonu war nañ ko mun a fexe ba nga xam ne mu deñ te dina tax vote bi gën a gaaw ndax liñ doon ñaawtu liñ doon ñaxtu yëpp ci vote bu yéex bi bulletin yu bëri yi ngay jël boo demoon jël benn bulletin kose fa ñaari kaas rek ñëw def benn vote mu jeex yu demee noonu en général ñu nekk si kujje bi dañ koy d'accord mais bis bu ñu yéegee rek. waa nguur gi ñooy dañuy daal di jal walbati man loolu moo ma gën a jaaxal. dañuy bu ñu fa faloo rek daal di ne boobu baaxatul buñ ko duñ ko nangu. parce que bulletin unique ci dialogue national bi waxtaan nañ ci opposition bi proposé bulletin unique ci woote yii nii mais ñu majorité bi. ñi ci nekkoon ñoom ñoo bañ ne. ñoom ñooy bañ te ñoom nekkee ci opposition dañ ko daan mm. wax. dañ ko daan proposé waaw lu tax xëy na ñoom ñoo xam seen ay pexe ak seen ay galgal mais de façon yooyu dañ ko war a dépassé. ñu avancer ci domaine yooyu ba nga xam ne suñu système bi baax na mais ñu koy gën a di consolider di ko gën a consolider alors mu mu jëm si kanam ci wàllu campagne yi aussi ñu fexe ba nga xam ne dinañ ko encadrer euh, financement parti politique yi am na ci yu bëri def nañ ko réforme yu baax comme le fait ñu accepter candidature indépendante yi euh, le fait aussi voilà élection du maire au suffrage universel lu bax la bien que amna yenn situation yo xam buñ ci yégué dina indi dina indi touti mm. jax-jax mais mm. avancé la mm. avancé la ndax gis nañu fi dans le passé ñu voté ba paré gaay yi tëju di may ay xaalis pour ñu voter kële donc si fra euh, euh, ni ñuy wax euh, droit bi nga xam ne citoyen bi am na ko fal maire am dañ ko daan jalgati ci ay ay njublang ci ay ay mm-hmm. négociation mm-hmm. yoo xam ne nii ci kaw xaalis dañ ko daan wér mm-hmm. wala ci kaw deal politique yooyu dafa nekk ay avancé yoo xam ne dañ ko war a fixé waaw jërëjëf Sadikh Niass Ibrahima tey gañe ngeen ci ay diwaan ah pas euh, ndax itam ku ne am na fa nga gagné waye y' a une grosse percée de ñoom moom <laughs> de l'opposition est-ce que défi bi tay hmm. lan la wara don ci opposition bi ndax am na fi ngeen teg seeni i gët te ñeen ñi gagné mën nañoo commencé sa xilaaf Georges da dëgg sa rax nga may nga ma ngay def quoi mais dama lay tontu ci ci ñi pour ñu ci ci ben ben ben wet dañu amoon luñ naaloon yewi askan wi moo bam bamtuwaat ñun ñoo waxoon ne ñun ñoo fi benn coalition XXL mo fi am tey dama koy fàttali parce que mu ko wax ci plateau ñu li gars yi dafa di yuuxu mais li am tay woné na ko mais nag dafa am défi bu muy woné hmm. défi bi mooy fi jëm fi ak juróomi weer législatif lañ jëm hmm. législatif ak local yi bokkut hmm. dafa am lo xam dañ ko daan jambat ci réew mi classe politique bi di ko jàmbat élite bi diko jambat population bi diko jambat moy assemblée représentation bi ñu am assemblée nationale pour wane perspective yi ñu jëm. ñi fay nekk dañ fa dañ daanaka ay benn wii wii lañ maanaam bu ñu waxee tàccu leen ñu tàccu leen bu ñu toog leen ñu toog leen bu ñu taxaw leen ñu taxaw leen dafa jot nag opposition bi ñu wax ñu xoolantey bët wax doxante dëgg fi ñu jëm perspective bi jëm mooy ñii yóbbu ci assemblée bi nañ fexe ba mu doon une ñoo xam ne kenn ku ne dafa am loolu mënee na ko pour que ñu ma tabax réew mi politique munul munuñ ko dëkkee trois cent cinq jours bëgg defar réew mi munul nekk local yi défilé woon su mborom dogal na ñoo moomee vent parfum bi xeeñ victoire la pour yewi mais nak dafa am lu muy lu muy dégager moy fi ak juromi wer bañ teñe gi fi nek buñ ko fi bëggee jëlee dañuy proposer ño xamné ni man nañu changer réew mi ci ci législation parce que amna yo xamné xam ko wax sank diko jundju dañu dañu war légiférer ci yo xamné ay détails ci réew mi lu ne mëna ci xew certificat domicile mais yow ñaata chef de quartier lañ am lan moñu ñu lan moo ñu teree liggéey loo xam sorte que recette lay doon pour commune mais nous les légiférer à partir de l'État central pour dire que c'est à domicile. Lolo, il faut que nous nous parlions. Donc, il y a une perspective. Il faut que nous baillions politique politicienne. Nous disons que nous sommes les réunis. Mais le problème, c'est que le problème de l'unité mhm. est-ce que yé saura maintenir son unité Manam, fexe ba ni benno parce que déjà les wax euh, ku commencé Dakar Ousmane Sonko ku commencé à man la man la commencé à faire ku ambition mm. ak ñeneen ñi nga aussi ci liste ngi ci ga élection yi ñu xam nga politique ambition politique ambition nga mais ambition du tere am réalisme politique l'efficience ak efficacité dafa am lu muy laaj ci contexte bi moy manam dajaloo don ben dank su borom nak dimbal nañ ba am nañ ko mais man lima ma jot gis ci process bi ma nekkoon yëpp parce que ba mu tàmbaleeg mang ci biir ba ci commission d'arbitrage ñu ngi won ci biir xam nañ li fi nek gis problème yi dul jeex gis nañ nek investiture yi problème yi. won ñàkk mënutoon ñak Dakar bi ñu tabbee daal dañu jaas waa Pastef dañ ne ñu ci ba mu ñu doon problème ba ñu wax. mënutoon ñàkk mais yow ya gisal sa bop fi mu mujj Barthélemy moom mooy suñu candidat donc waxtaan diisoo kenn ku ne am loo bàyyi kenn ki am loo xam ne aussi nangu nga ko nangu ko bàyyi pour ñu mën a avancer mais da ngay da takk benn mbir euh, li ne ci kanam waxtaan a koy def mais ñun dañoo njort ne gisuma man bu ma procédure bu ma bokk ba léegi gisuma fi loo xam ne war na mën a tas coalition bi au contraire da koy da ko da lu koy dooleel laa gis lu koy dooleel ci benn mooy perspective bi njëkkee jëm bi ñu jëm bennoo moo ñu koy may kon gisuma lu ko war tas maintenant ambition nak politique ki nekkoon ci touche bi ak ki nekkoon ci liste bi ki nekk maire ak ko beugone don donuko ko mënul mais lepp lo gis su ko waxtaan lale je pense que mën na jëm kanam leader yi mag yi ma gis xam len xam sen am am commerce dama gis ñom ne man ma gisee la ci ken ñaar rek muy président Déthié Fall mo xam ne maag moom ñoo bokk ben parti bi muy Khalifa Sall qui est très conciliant parce que il faut aussi ñu ñu wax dëgg yalla tax très conciliant niveau bi mu am auteur bi mu am mo waral du toll ni ñu mën ko def le président Ousmane Sonko conciliation la dox ci ci ci pour ñu mën a jëmmal coalition donc boo gisee yéene boobu am c'est que parce que entente am na donc maintenant nag pyromane yi. entente entente ak mésentente yenn saa yi comme ni ko Ndiogou waxee. mënul ñàkk Ndakaaru Medina Grand Yoff ak yeneen. ñaata ko ñaata commune am. ah 500 ñaata non ñaata ñaata mairie. non ci Ndakaaru laa yem. xaar oh, xaar dafa nag 500 nag maanaam juróomi téeméer rek lu topp toftal ñu mën a ñu mën a am liste mu sot mooy mënul ñàkk mu am ay ay féewaloo ay xiroo waaye terewul li ci essentiel bi daje nañ ci te essentiel nag moom lañ wane ci biir Ndakaaru Ndakaaru Barthélemy moo nekkoon suñu candidat waxoon nga ne am amoon na amoon ay ay ay ay ay bis bii mais terewul nangu nañ bi toogee wax sax li nekk suñu kanam Georges pyromane yi doon wax dëkk bi day tàkk tàkkut pyromane yi mooy ñan non il ma a non non parce que man sama posture mon ko pyromane yi ne ne coalition c'est su dogal nag ne pyromane nag commencé def léegi di non coalition bi dana ñun coalition la ñuy yóbbu dem discours va t'en guerre moom mën koo qui ci seulement. d'accord dafa kilifa gu mag muy dee ndax naa na naa na mbaax kese matul kër mbon matul kër da ngay boole ñar yëpp su bëggee yor kër dangay ngay boole mbaax ak mbon mais li li li koy dajale mooy laayante biir mooy xam li nga bëgg mais ensuite moo xam lan lan lañ la yen suñ sa sa sa ndodd jërëjëf euh, professeur Moussa Diaw allo professeur waaw professeur euh, résultat yi nga xamante ne moo tukkee ci élection locale yi est-ce que mën na am njeexital

Euh, poste premier ministre de après élection il a koy mm-hmm. euh, donc ça veut dire que après élection on pas avant élection mm-hmm. mais après élection ça veut dire que ni fait tirer ay son ci résultat de élection donc c'est en fonction du résultat parce que a on ni choisir na sax ci choisir na euh, Comment il nommé premier ministre mm-hmm. est-ce que l'on doit changer parce que ce fait que le premier ministre boobu mu yaakaaru ni euh, mu bëggoon mu bëggoon tabb su fekkee ne kooku dafa nek candidat te ñu gagné ko eh, dana changer aussi dana changer euh, choix en tout cas il faut que mu tirer des leçons ci situation bi comprendre interpréter votre citoyen yi seet lan ban ban message mo ci nek mu mu décrypter le message bobu

ci tu, tu, ci nu muy former gouvernement bi. ci hmm. choix dana dana am ay ministres certainement hmm. dañu dañu mais mais tamit jël ay mesures par exemple président sanctionner ñi nga xam ne ñoo perte les perdants est-ce que loolu tamit solution la. ministre yi perte wala DG yi perte nga bëgg leen euh, teggi parce que tout hmm. simplement euh, perte nañ loolu tamit euh, est-ce que xalaat la loolu xalaat bu baax la. non non non il faut que mu analyser il faut que mu interpréter sensu vote citoyen yi. lan la ñu bëgg wax ci vote bi ban ban sens luñu bëgg mhm. luñu bëgg ci ci ci ci ci ci amélioration ci changement politique ci pratique politique mhm. euh, ci euh, ci choix projet euh, d'avenir donc le ma yaakaar président bi loolu yëpp dana ko analyser avant muy muy choisir premier ministre nga xam ne moom la yaakaar ni mooy former beneen gouvernement bi donc il faut que ah. loolu yëpp day am day am répercussion ci ci ci rapport de force ci ci majorité bi qui euh, leaders mm-hmm. et en même temps aussi dana euh, euh, impact pour l'avenir, pour les élections les chances à venir. Mm-hmm. professeur Moussa mandat aussi mandat mandat a mandat. a uh-huh. mandat. de Dakar. en tant que ministre ñu wóolu woon ko dénk ko yooyu yëpp quel est son avenir politique moom tey jii Abdoulaye Diouf Sarr allo professeur oui allô nee na lan mooy avenir Diouf Sar ci wàllu politique euh, gannaaw bi mu ñàkkee élection yi fii Ndakaaru en tant que ministre ak Yoff alors alors euh, moom son son avenir est compromis ah. son avenir est compromis parce que de risque bu rëy la jëloon. Mhm. responsabilité bu rëy la jëloon te président moo ko moo ci d' accord ci moom ah, loolu nag dana ko handicapé lu bare. jërëjëf dana am handicapé projet yoo xam ne bëggoon na ko def pour son avenir politique. li ci kanam rawiti gët jërëjëf professeur Moussa Diaw di. Euh, enseignant chercheur ci ay université Gaston Berger bu Saint-Louis sciences politiques politique jërëjëf itam euh, docteur Ibrahim Ndiaye bok ci yeewu askan wi PRP bu Déthié Fall. ñu ngi leen di jaajëfal Sadikh Niass naka noonu ñu lay jaajëfal. merci njiital rajo bok ci société civile euh, société civile nga xamantene walum wàllum élection di leen di li leen ñor. Mm. may jaajëfal itam Elage Hadj Ndiogou Diène bi ma ci waxtan wi di leen jaajëfal yéen itam.